conseil départemental de Koungheul. ok merci man doon tey fekk na seen première session ñu la fale ba nekk SRS bi ba nekkoon première bi est a xam lan mooy euh, waroon tey session tey. moom euh, lu am solo moo ñu ci indi woon ndax dañoo ñëwoon di xool budget bi nga xam ne moo war a doxal euh, conseil départemental bi léegi nag ñu woowoon.

Euh, bu at mi taxawee war ngaa def sa budget budget bi nag euh, ñaari mbir moo ko def te moom lañ ciy doxal mooy budget d'investissement bi nga xam ne moom la war a def ak budget de fonctionnement donc loolu nag ay dotation la yoo xam ne bii ngi jóge ko ci nguur gi ñëw fi donc loolu il faut ñu toog ak conseil yi nga xam ne ñoo fi nekkal département bi ñoom lañ fi tam muy 60 conseil ñu xool nan lañ ko war a doxalee ba ñëpp d'accord ci mu wote ko yónnee ko préfet mu approuvé ko ñu mën euh, ko déroulé donc loolu mooy jiitu commission yi. waaw. waaw loolu wote nañ ko à l'unanimité ñi absenté rek ñoo wote waaye wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee woon bi ñu may installé ay parti politique amu fi ensuite euh, tendance amu fi. te tey nag wax dëgg yàlla kontaan naa parce que conseil yi war nañ ma ko ndax ñëpp ñoo wote budget bi à 100 pour cent ñeenti nit nga xam ne dañoo absenté rek ñooñu ñoo wotewul woon budget bi donc loolu vraiment maa ngi ci gërëm waa Koungheul yi di leen sant ci esprit de dépassement bi nga xam ne am nañ ko bi jógee ko ci loolu nag dem nañ ci conseil ci commission yi nga xam ne ñoom lañ formé commission yi nag wax dëgg yàlla xawoon naa am tuuti coow waaye xam nga man toujours esprit de dépassement ensuite nit ñi wax dama parce que nous wax yépp euh, la ndax ku war gis sa euh, gis nga gis rek am kenn donc mënuñu quatre commissions moom lañ def quatre commissions nga am 60 conseils ku xam loolu te ma jël ñoo xam ne ci commission yi ñoo xam ne xarañ nañ ci liggéey boobu xam nañ ko par exemple ki war a nekk finance mën naa ci lim kenn koo xam ne kii def na benn banque boo xam ne mën naa ne sa yéen xale ngeen xëy na da ngeen ko xam crédit lyonnais def na fa 23 ans ñu dugg dugal ko commission des finance ñu jël commission élevage dugal fa kenn koo xam ne moo yore woon commission élevage bi pendant sept

ku nekk mën ngaa doon membre commission boobu finalement ñun ñu déggoo nañ ñi nga xam ne dañoo bëgg ci commission yi invité naa leen ci benn réunion ne naa leen nañ nañ bind buñ bindoo ñu ñëw ma recevoir leen sama bureau ku nekk commission bi nga bëgg a dugg ñu dugal la parce que ñun liggéey moo ñu tax a jóg rek te dañoo bëgg bu bés buñ fi jógee ñu bàyyi fi suñu empreinte ci yoo xam ne ñu baax lay loolu moom déggoo nañ si amatu benn problème am na ay chantier yoo xam ne lu sensible lu ma fekk su mel ni terrain de basket bi par exemple yeggul parewul te nit ñaa ngi fa nekk di fa te loolu warul nekk loolu yëpp euh, bi ma ñëwee gëstu quelque kayit yu ko indi euh, peut-être euh, ñi ma ñi fi nekkoon li ñu amul expérience moo tax parce que normalement waroon nañ def fii benn cellule de passation de marché boo xam ne bii day am nit ñoo xam ne ñu xarañ ci liggéey boobu la doon ensuite même bu dee benn technicien sax ñu recruté ko mu ñëw di leen xoolal liggéey bi ndax aw na yoon wala amul yoon mais loolu yëpp amut ba moo tax na sax boo xoolee kayit yi si budget bi budget bi passé am na si yoo xam ne crédit yu bëri yoo xam ne ñoom dañ ko perte parce que consommé wuñu te institution bu fekkee ne dañuy def contrat de performance bi dañoo war a jëkk a xool consommation budgétaire bi ni mu demee fii nag euh, xool naa ne daal euh, muy si fonctionnement bi muy si kii bi ou bien man maa comprendre parce que démb rencontré naa payeur bi ñu wan ma ne report de crédit yi ñu waroon a def bari na trop fonctionnement bi rek boo ko xoolee euh, li ñu li ci am problème ëpp na 30 millions bon investissement bi aussi li fi nekk ëpp na cinquante xam nga loolu aussi arrangé wuñu kii bi mm-hmm. loolu yëpp peut-être ni ñu wax ma ne y une mauvaise gestion mais quand même une organisation et ça se comprend comme c'était euh, c'était la première fois que nous avons une institution il fallait que mu am tuuti faille mais aussi am na si des choses donc ce ma la wax terrain de basket bi dinañ fait woo entrepreneur bi mu ñu seet nan la ñuy def ba yeggali ko parce que première entreprise bu paraître ko dañu ko résilier woon beneen projet bi aussi mooy briqueterie bi nga xam ne ñoom dañu ko prévoir woon pour def ko euh, dëkk bi fii nii voilà voilà Ida ko waroon a def kooku aussi y a des problèmes parce que projet balaa nga koy tëgg normalement war nga am site le site n'est pas encore disponible loolu lu war a retard bi ci la bokk mhm. mais crédit yi c'était disponible ñoom lancé nañ appel d'offres ba pare attribué nañ ko mais problème bi ñu am mooy aussi il fallait que population yi adhère si il fallait que ñi nga xam ne ñoo représenté population yi muy conseil yi ñoom ñu d'accord ci mais j'ai remarqué que ñi dem interpellé naa leen ñoom pratiquement d'accord ci ñi ñëw nii sax nga xam ne yoo xam gisuñ bi nee nañ yaa des priorités am na yoo xam ne mu gën a priorité par exemple tey ni ngeen ko gisee sax loolu euh, dinaa ko mooy salle bi xam nga soixante personnes dañ obligé woon ku nekk ñu wax la masque na la takkal ne leen ñëw leen mënoon nañ woon wéy salle mais dama bëggoon ñu vivre expérience yu xool réalité bi ñu mu demee que ne salle bi dafa tuuti alors loolu noonu wala loolu priorité donc ut site man li sama priorité mooy ut site fexe ba ñu tabaxee conseil départemental tabax benn bâtiment boo xam ne bii dañ ko def salle de réunion boo xam ne dina contenir cent personnes nga xam ne sax bu neexee mën nañ di ko louer mu dugg ci compte conseil départemental bi ñu koy utiliser à d'autres fins par exemple jël ci ay gardiens yóbbu leen ci CM yi e, yooyu comme ni ñu ko defee loolu moo gën ñu continuer location bi ñu def nii nga xam ne ça va perdre faire perdre à l'état beaucoup d'argent ndax par exemple ci ce qui s'est passé à Dakar ba looloo tax ñu créer sphère ministérielle boobu ndax ministère yi li doon loué rek ça faisait des milliards pour l'État lii aussi boo ko compté pendant l'année euh, vraiment am na lu ñu bu ñu tabaxalee daal xam naa ne moo gën man intention yi la am moo tax crédit yooyu ñu defoon ci briqueterie bi ba nga xam ne bii entreprise bi démarré wul te amul site buñ ko def terrain amul dara amul j'ai écrit à qui de droit pour demander que ñu def changement d'objectif. objectif tabax si par exemple préfecture bi wala ñu tabax si conseil départemental bu def benn bâtiment R plus 1 euh, kii bi nekk sous préfecture bi conseil départemental bi nekk ci ou bien vice versa ñu def loolu daal mooy kii ensuite à part loolu am na yoo xam ne dañ ko programmé woon mooy réhabilitation de centre de santé loolu tam ba léegi defuñ ko parce que loolu aussi problème yi ko indi mooy ñoom bi ñu lancé seen appel d'offres DRP lañ ko def xam naa nag c'est pas bien ficelé mm-hmm. bi mu demee ba service de passation de marché bi nekk Kaolack ñu rejeté ko non c'est mal yëpp dañ amul ñoo xam ne am nañ expérience liggéey bi ak ñoo xam ne xam nañ code des marchés moo leen sa fait crédit yooyu soit dañ ko perte wala ñu def ko report mm-hmm. donc loolu aussi ay jafe-jafe daal dafa indi yooyu yëpp daal dinañ ko jéem seet na nañ koy saafaraal bien que yéex nañu ñu mois de mars lay nekk xam nga fu ñu ni mars il reste quelques mois pour budget bi octobre lay doon donc xam naa ne bu ñu koy lancé waat dañ koy def en procédure d' urgence boo xam ne day am transparence après ba nga xam ne du dem si du def ci kii bi euh, la direction centrale des marchés publics ñu da koy rejeté donc loolu moo leen andil problème yi moo tax pratiquement benn liggéey yeeku fi daal sectionné wuñ pratiquement ay ay liggéey à part quelques salle de classe su ma dégg te dema ci côté éducation est-ce que am nañ loo xam ne ko prévoir ñu ko ci bi cette année ci wala amoo yeneen si yeneen côté côté éducation ce qu'on a prévu de faire mm-hmm. donc là également ça pose problème parce que allocation budgétaire bi dafa tuuti li ñuy jox dafa tuuti donc le problème qui se pose actuellement moi la construction du second lycée La construction construction second lycée il faut foog état bi dugal conseil départemental il li mu mën ay salle de classe quelques salles de classe tabaxal leen Nous avons ma budget nous avons prévoir quelques salles de classe mais ma gis ne ñu ngi prévoir ay heures supplémentaires yoo xam ne dañ koy fay ñoo xam ne mérité ma jël heures supplémentaires yooyu versé ko ci pour que a am six salles de classe pour leen waaw parce que vraiment man ba commencé ñëw ba léegi nit ñi fekkoon na sax dañuy liggéey si huit heures wàcc treize ak yooyu mais aussi nga fay leen heure supplémentaire ëllëg bu fekkee ki ñëw na ko di ñëw na doo ko mën a justifier ndax xaalis moom fu mu génnee il faut nga nga fay ay heures supplémentaires bu ñu xoolee feuille de pointage amu fi dara amu fi alors ñu xool gisuñ kan moo fi liggéey sept heures et demi di wàcc par exemple dix-neuf heures ngay fay heures supplémentaires comme ça ça c'est une faute

Euh, waaw élection législative yi temps yi wax naa ko sax ci ci presse bi parce que pratiquement ñëw na euh, te xam nga ne Koungheul day département boo xam ne dafa xaw a métti ndax boo fàttalikoo en 2013 la xaw 2014 la élection législative yi nga xam ne moo première élection législative bu APR ñaari département le président ñàkkoon ñaari département yu Koungheul ci la bokkoon xam nga loolu dafa métti ñu jël lu ëpp ñeent fukki département ñun ñu bokk ci perte dafa métti woon alors bi demee ba 2017 jot ñu war a defaat élection yi ci la ma président woo investir ma bi ma investiré euh, yow yaa ngi fi woon boobu ma gagné élection yi ak euh, pourcentage bu baax comme c'était dans une direction générale euh, ma cédé place bi waaw sama suppléante pourquoi parce que il fallait que ñu am ñaari poste Koungheul parce que c'était pas évident que man bu ma demee assemblée ki ñuy nommé ci direction bi Koungheul lay dëkk donc il fallait que ma conserver direction boobu euh, jël benn bi par loyauté jox ko sama sama suppléante léegi ñu dem de également Euh, président m'a fait l'honneur de m'appeler pour ma dire que ne dama lay confier département xam nga département dafa métti moo gën a métti euh, commune ndax bu ñu amee par exemple ñu commune communes commune communes ah huit communes boo perte quatre commune yi c'est pas évident nga jàll mais boo amee sa commune kese boo ko liggéeyee comme il le faut man nga ko gagné donc man ñu fallait que ma liggéey ci commune yëpp pour may gagné conseil départemental donc am na ñu bëri ñemewuñ ko woon a sóor alors ñu jox ma ko ma gagné waat donc on dit souvent que y jamais deux sans trois Il y a ces raisons-là. Ensuite, je sais que man, euh, man nag investir bu ñu ma investir dinaa gañ waat législative parce que n'est pas question que président di perte Koungheul encore perte na ko benn yoon dootu ñaaraat donc risqué yenn yi mënuñ ko risqué jël ay nit yoo que ne nii vraiment euh, amuñu yenn popularité yi amul benn base politique ñu leen investir ñuy pertaat euh, élection législative mm-hmm. parce qu'on am na responsable yoo quand même dañ leen investir woon ñu nekk tête de liste ba pare ñu perte seen bureau de vote après ñu jël leen bugg leen investir ci législative bi loolu ñu ko seetaan ñu ko seetaan buñ ko naree def kay ñu dem jël ci kii nga xam ne këyit yi nga xam ne ñoom ak benn bokk yaakaar benn la ñu def benn liste parallèle à côté daal daal di ko gañal président ñoo ne ko am lii lañ la bëgg loolu léegi il n'est pas question du pour nag bëgg a doon ni député moo tax ñu koy def mais pour gagner le président de la république Macky Sall moo tax ñu ne ñu investir pour ñu koy def parce que perte bi daal vraiment daal man loolu laay ragal daal moo tax góor bu ñu ma booleel nag baax na ma ku mënti doon rek bu ñu ma booleel rek man xam naa ne bu dee man la dinaa gañ loolu moo ci am bu am solo léegi nag tey mu nekk première session bi ak première face à face avec la presse mën nañ ko ban message pour population euh, pour voilà population bi de li ma leen di wax rek mooy nañ rafet njort xam nga population bi su ma ko waxee ñu mel ni conseil yi parce que 60 conseils yi ñoo représenté toute la population de de Koungheul mais bu fekkee ne da ngaa ñaaw njort boo gisee lii mu weex nga ne weexul dafa xonq kenn mënu si dara donc bu ñu rafetee njort rek danañ mën a liggéey gis nga man mata dans bu ma mënti poser rek dama ko posé ensuite. Euh, dama naan lii dafa nar a baax boo ne dafa nar a baax rek yàlla mën na laa dimbale mu baax parce que intention bi rek moo ci am solo mais bu fekkee ne da ngay ñaaw njort ne lii du baax lii du baax ñun suñu yaakaar tas na comme ku ma déggee am na kenn ku ma dégg mu ne ñun suñu yaakaar tas na te benn benn section rek lañ def yaakaar tas na te moom wote na budget bi parce que boole ko ci commission rek mu ne suñu yaakaar tas na kooku li mu wax ko ndax moo ñu koy xam ñu kati loxoom voté budget donc il est engagé parce que moom moo ko wotee d'accord na ci li ñu def xëy na man maay l'organe qui exécute mais ñoom aussi ils ont une part de mais bi ñu demee ba ci commission yi rek mu def suma yaakaar tas na parce que bokkul ci commission mu xam nga ko kon li mu wax gëmu ko man daal am naa yaakaar ne ñoom dinañ am ay résultat dinañ am ay résultats dinañ uti ñu jàppale daal ñu am ay résultats euh, ay rencontre nga ce premier session le conseil, taxaw cette commission wote budget bi pour préparer liggéey ban rendez-vous nga ñu xaat pour beneen session. prochaine session bi xam naa ne xam nga aussi mënuñ ne tel temps lay doon parce que mën nañ am sax réaménagement budgétaire donc mën na doon sax dans une semaine mën na doon dans un mois wala deux mois mën na nekk bu fekkee réaménagement budgétaire dafa am comme par exemple man. lettre bi ma bind pour briqueterie bi ñu jël ko def changer objectif yóbbu ko ci dara bu fekkee jàll na dañuy def réaménagement budgétaire parce que briqueterie bi moo nekk ci biir kii bi ndax fonds alloués yi foofu lañ ko yóbbu woon mais nit ñi ko parce que ñu ngi ci def presque ay deux cent et quelques millions te loolu vraiment mënoon nañ ci def lu bari pour lycée bu bees léegi nag bu fekkee ne loolu ministre bi ma ko bind ministre des collectivités territoriales tontu na ma de manière positive damay woote ñu def beneen session budgétaire pour jël crédit yooyu yóbbu ko feneen c'est-à-dire yóbbu ko ci la construction par exemple ñu construire conseil bi wala ñu yóbbu ko ci lycée bi mais nañ ma ko yóbbu daal mu dem ci yeneen construction voilà donc mënuma la wax na ban date la ñuy def cadre de kàddu gu mooy tëjee la. li may tëjee rek mooy gërëm leen sant leen yéen ñi nga xam ne yéenay taskati xibaar yi parce que yéenay tax ñu nekkul woon ci conseil bi kamoon xam li fi xew lan la. Euh, xam ne budget bi woote nañ ko à 100 cent xam ne ñun ñëpp dañoo ànd xàccandoo dóorandoo mais nag toujours euh, lépp mënul doon à 100 cent il faut am ñoo xam ne nii danañ xaw a ŋàññi xaw kii mais boo ko xoolee zéro virgule zéro pour cent la. waaw peut-être beneen rek moom moo xawoon a nar noonu mais aussi on l'a fait revenir à la raison war ko ne ko yow lii tu es engagé parce que xam nga conseiller moom euh, wax naa leen ne sax dinaa leen defal benn formation pour ngeen xam seen rôle loolu la conseiller ñëwuloo pour di critiquer parce que da ngaa war a ñëw pour partager partage ba pare joxe sa contribution wax ne. lii moo baax nañ ko def li ñu war a changer ñu change ko mais boo fekkee ne da doon conseil ñëw avec d' autres intentions yow da ñëw en tant que politique ñëw ne kii dama koy créer problème wala man damay politique li mu wax d' accord ma ci lii laa d' donc loolu laay wax euh, population pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan vidéo bi quand même xam ay conseil nañ leen woo ñu leen di yedd souvent ne leen ñoom euh, bu dara yàqoo ñoom ci ñu ko yàq lañ bokk parce que ñoom lañ faloon wax nag waa Koungheul yi rek nañ am confiance ñun après ñu japp lañ képp ko xamne ne aussi même ñëpp ay conseiller ñi ñi fal sax ay conseiller ndax mën ñu ubbil ay buntu yo xamne buñ fa démé dañ leen fa jëlé lo xamne ni dina jëriñ département bi donc loolu am la leen di lancé di wax ne maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di talal loxo nak ñëpp di talal loxo maire yi nga xamne war nañ leen dajalé pour laaj leen seeni priorité pour luñ leen ci mëna a defal ñu defal leen ko xawna nak yéx parce que dañ nekkoon di lañ euh, budget bi pour defaat ko ñu ngi koy doog a pare actuellement san budget tu ne travailles pas donc tey lañ ko valider donc li ci des nag mooy dem vers la population vers les maires laaj leen seen i priorité lan la parce que mënoo dem ci mairie jàmbur rek nga ñëw ne ko damay defar lii foog laaj ko li nga bëgg lan la lii la arrangé lan la am naa 2 millions wala am naa 20 millions fu la koy defal mu ne la fii la nga ànd population bi daal ñoom ñu ngi leen di tàllal loxo